mbokk Sénégal tey jii nag ñu nar a waxtaanee ci wàllu ndoxum siti ndoxum siti nag feebar la bi nga xam ni ci deru doomu aadama bi lay gën a feeñ donte ndoxum siti nag a feeñ ci biir mais dana feeñ ci biti mën nañu wax ne soixante quinze pour cent ci nu muy manifesté woo ci der lay manifesté woo exemple jigéen bu tëw am doom ndoxum siti mën na nekk ci butitu njurukaayam am na jigéen ñi xam te ne dañuy am ay kyste dañu am fi dañu am ñoom te loolu buñ ko seetloo ba ci biir it ndoxum siti dafay bokk ci li nga xamante ni dafay am yan xeetu feebar moom mooy am ci der ndax xam nga baalu ndoxum siti ay maladie ay maladie ay syphilis endémique la wala yenn infection yi mën na ko indi ay lésions ak ay démangeaisons maanaam ay picc yi nga xamante ni day am ci yaramu doomu aadama ni muy manifesté woo comme ni ko waxee sànq dafa bari ñenn ñi ay picc la leen di jox ñenn ñi heure la leen di jox ñenn ñi seen yaram da koy ñaral ñi ci des seen yaram da koy xar tànk yi day xar seen wey yi day lakk di ñuul ñenn ñi day jàpp seen bët ñi ci des ndoxum siti dina jàpp ci seen baat ci seen put yi kon nag ndoxum siti dafa nekk lu yaatu ndox la bi nga xamante ni dafay kuule wu ci diggante der bi ak deret ji foofu lay dox mais fu ko nekk ci nit ki mën na fa génn. ñu euh, am ñoo xamante ni euh, seen awra day à tout moment day tàng dañ koy wokk kon nag képp ki nga xamante ni yàlla boole na ak yow rek ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem après consultation dinañu mën a xefe xam sa jafe-jafe boobu nga am nan nañu mën def ba jàppale la ci loolu incha li nga xamante ni moom oy favoriser apparition wu ndoxum siti loolu moom lekk déjà bokk na ci li koy gën a favoriser yenn alimentation yi ñun nag euh, Sénégal. sunuy alimentation dafa dafa gras bu mu ëpp te ndoxum siti bëggul bëggul lu niin soow daf koy favoriser bu baax dafay yokk ndoxum siti eh, gerte kemp day yokk ndoxum siti ce rek meew boo ko suukaree rek automatiquement dafay favoriser ndoxum siti bu baax lekk yi ñuy faral di lekk dafa bokk ci li nga xamante ni mooy tax ñun Afrique wala Sénégal ñun dañu bokk ci ñu ëpp ndoxum siti ci àddina ñun sénégalais yi te itam xam nga nga nekk jigéen war a rafet yàlla dogal sa kanam di am ay tache sa am ay ër xam nga lo saabu boo sangoo mu allergie la diw boo diwoo mu yàq sa yaram te ndoxum siti moo ko waral te fekk ni am na consultation yoo doon def wala traitement yu doon jël ci benn un mois yàlla dimbalee la ndoxum siti boobu mën a dañ loolu am na solo euh, bu dee xale itim loolu itim dafa nekk li xam te dafay feeñ ci ñoom ndax ndoxum siti toppub sët la moom sa maam sax da koy am mu topp la topp sa ndey topp sa baay ba ci say sët da lay topp am nañu ay traitement yoo xamante ni da koy faj ci biir garab yooyu naan am nañu ay traitement yoo xamante ni da koy faj ci biti mooy pommade bi nga xamante ni moom ngay diwoo fépp fu si siti génn sa yaram traitement bi ça dure juste un mois traitement bi def nañ ci xewal kuñ ci yàlla boole rek incha allahu rabbi suñu yàlla booleek yow daañ la mën a jàppale ci loolu traitement bi ci kàttan yàlla un mois yàlla mën na dimbali dimbale incha allahu rabbi numéro bi ngeen ñu mën jotee mooy 77 169 45 45 77 169 45 45 wala ci beneen bu mu jokkoo bi di 77 160 93 93 77 160 93 93 woote leen pour jot suñuy ndaw pour am rendez-vous wala pour jot ci garab yi incha allah jërë ngeen jëf yàlla yàlla barkeel te wéral cër yi ci kàttanu yàlla ak ma yërmandeem amiin Serigne Touba.